salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di siyaar si nekk ma doon jëf sa waa ci waa ma leen nuyu patriote yi tey na ma bëgg ñëw def vidéo ba yem rek ba gàttal jëmale ko si sama suñu su suñu xarit laa ko mën a tuddee mooy Azoura Fallou ñi euh, ñi gis sorti bi mu def live bi mu def wax bay saaga Bassirou Diomaye mu nekk nag erreur mu nekk erreur ak loo mer mer mer Hmm? ak loo ñàkk maanaam ak fu la mbir mu toll daal war ngaa mën a tam maanaam war ngaa mën a dal waaw parce que loolu dafa rëy la fekk ñu ne la bàyyi di filmer kii nu mu tudd Basirou président Basirou Diomaye Faye nangam ak nangam c'est juste maanaam fi mu tollu léegi maanaam cambar cambar bi la ñuy bañ quoi loolu am na ku ko war a def ku si ni Hannibal Jim moom fu Diomaye dem moo koy topp loolu. lu ñu ko accordé la mais pas comme sama genre gi wala keneen ak keneen fu mu dem rek ñu dugg filmer ko comprendre nga loolu kese la euh, Azoura yow suñu waay nga suñu xarit nga du dëgg ta borom baax nga du dëgg hmm? borom baax nga donc yooyu dang koy éviter bu ñu ñu waxee rek neen ok d'accord xam nga te bañ a jiital xol voilà boo jiitaloo xol rek day day day day nuru leneen voilà te période bi ñu toll nii waruñoo toll si phase nekk fii di nekk fii di maanaam di di defante daal ñun patriote du dëgg ah moo tax li ma lay ñaan rek mooy euh, li ñu ñuy wax rek nel ak koy ok d' accord du dëgg ñu bàyyi jomaay ñu bàyyi jomaay concentré wu ak Ousmane Sonko mi nga xamante ne mu ngi nekk si côté am ñi koy filmer fu mu fu mu dem kenn la mooy animal jim ñu bàyyi tax liggéeyam boobu ñun ñu continuer si suñu liggéey défendre projet bi du dëgg ah. donc vidéo bi du gudd quoi c' était pour ça saaga bi moom moom na mujj tey dégg nga loolu defatu loolu parce que Ousmane kilifa la bu dul dara sax nga russi Sonko ndaxte Ousmane moom tànn na Diomaye du dëgg ah donc Azura big respect dégg nga a la ñëw nga dal après nga jéggalu nag du dëgg. Hmm.